murid yi foog na ñoo gën a bañ Serigne Touba ñu nekk ak Macky Sall xalaat si yor ngeen xam xalaat leen ko ñooñu nag duñ ko ko wax du dëgg bi nga xamee ne mu ngi wut réew mi nekk ci ay jafe-jafe Serigne Touba dong ko làq tey jii ne comme neex nga kaalawu ne man la waaye ca Blaise Diagne nga koy tàmbalee bi ndeyam tàggaku fii moom fii ci port bi dana ko boo demee Gabon ab sëriñ a ngi fii boo xam ne jaaroon na fi boo demee lu nga koy def ci lu ñaaw boo ko bokk bu ci bokk ci gàttal keroog duuru mbay jëlee ndax gabon jamono yooyu gas fa fonce dafa yombut dañuy teg aw dénk ron ci lu mel ni ay paan bu nu demee aajo def ci ay seeni ñaawteef ba pare bu nu xëyee yenu prison yi yenu ko yóbbu ko ci dex duuru ma mbay wax benn prisonnier ne ko bu loolu amatee jëlal ma loolu fekk fi sëñ Tuubaa toog di bind nga xëppal ma ko du moom ma ko wax fi sëñ Tuubaa di bind la ko fekk sotti ko loola Sidi Maabo doon wut saabu di ko toppatoo ba ci beles yaa ngi ñu ko toppatoo ba loolu moo sabab folliku di duuduma mbay ndax Sidi Maabo moom la mere di ko fetal mu keneen ñu rekki ko moo ne kooko dey li sëñ Tuubaa di wax xafawtu anil ahdaa yi turam lu dëggu la ndax duudu ma mbooy mbay moom sëñ Tuubaa baaloon na ko ba am benn bis am ku jóge Gabon mu jox ko xaalis ne ko boo demee jox ko ne ko ko ba koo ko demee ba ci moom jox ko xaalis bi dana ko delloo ko ne ko dama ko bañoon tey la raw waaye yàlla àtte na ko ak ku bañ nitu yàlla ndax dem na bu mujj yàgg ci potu ndaa lay dem àll def ci sànni rimb ko di ko naan fala faatoo loolu xam naa ko bu baax kon bañ Serigne tubaa amul njariñ ñii di ko bañ seeni xol rek lakk te gis nga nguuru bu sàll Sall képp ku ci nekk bañ Serigne Touba am nga problème ndax amoo nit ñi amoo yàlla perte mala lu ci nit def Macky Sall nga ko séqal tànk def ko waaye defaloo ko kenn ko takk ci moom ndax ñu ci bari ci ñoom xam nañ ne ay mbërëngaan lañ duñ ñëw yegg daa tooy rek ñëw kon na xoolaat boppam lenn tur taaru président de la république ak i moyen am Serigne Touba ak barke moo ko njabootam loo bëgg am na fi dara weesagul na jublu ci njabootu Serigne Touba dénk ko seen bopp ñoo ko mën a lépp Serigne Touba moom nag dafa am lu xew ci jamono ji muy kalaasu ñi nga xam ne dañuy jàng ay xasaay xasaay léegi soppi nañ seen tur ndax complexe ñu ci bare bare léegi tàggkatu yonent bi la ñuy wax li Serigne Touba tàgg yonent bi kenn mësu ko ko wax jàngkatu xasaay te gën a wóor ñiy jàng xasaayit tam yor seen bolog yu rëy yi te jàpp ne ku ko solut boo jàngut xasaayit beneen jullit bu ñu gis doo jullit ñoom rek na ñooñu ñu ngi cay caaxaan da léegi da gis kuréel boo xam danaan kuréel bu ma faatoon gis ni bu ndoomee waa seen jullit leen nuyu waa loolu kañ la fi jàng fop tey jii mën na noo kuréel fii ba ngoon jot micro bi nag ku ko ci laal sa bopp neewi te magi sëñ Cheikh Obal yi sëñ Sidi mën na maa seere nu ne la daan jëfandikoo bu ma saan jàng xasida yi kon waxi caaxaan yooyu ñu tàmbali ci yoon yoonu di jël ay xase yi di ko tudd ay tur di ko def ay kuréel di noonu seen biir nan ko bàyyi yoonu murid wet sañ-sañ yi dafa bari kenn ku nekk jàpp ne yaa moom lépp yaa war a doxal lépp lu yees amu fi sëñ Tuubaa ci yeesal lanu lan ko joxe suñu bakkan li fi mat a wane lépp war na ko Cerno Birahim modèle murid na la na ku ko jàng boo mokkalee mokkal yoon yi ku ko bor nga mokkal yoon loolu mooy li dëgg Thierno Birahim moom tamit jikkooy boppam ak sellu boppam bëgg Sëriñ ak boppam jar na ku bokk ci yoon wi royee ko ko kon nan roy maam Thierno Birahim ci Sëriñ Tuubaa di sant bu baax tamit taalibe yëpp di sama waa dëkk pay-pay ci ñoom laay jiital ak mboolem daayira yi nga xam ne danoo jóge Touba ak Daaru Manaan Mbaaba ak mboolem fu njabootu suñ Cheikh Fall nekk rek te représenté fi yoon wi di sant baax sëñ dañ moom sëñ Abdou Lahad sëñ Bass moom sëñ Abdou Khadir yónnee na fi euh, sëñ Abdou Lahad yónnee na fi maire bu Touba waaye ci gàttal daal li nekk sama xol ma jàpp ko yéene ko sant mbooloo mi lott naa ci def ko di sant sama jigéeni bopp yee di soxna Ami Mbenn Fall ànd ak rakkam soxna Daba Ndaw te ñu yor mbooleem loo xam ne moo jëmoon ci toppatoo bi di sant bu baax soxna Nday Mbàkke mu suñu Fall as Jéey ak soxna euh, maam Awa Mbàkke mi nga xam ne moom it mbooleem sëti maam Cerno yi fi nekk di jigéen ñoo ñoo leen fi nekkal di sant bu baax soxna Jaxate Mbàkke ak soxna Astu te teewal fi mbooleem njabootu sëñ Maxtaar jigéen gi di sant bu baax euh, soxna Fat moom it sama sama waajur la te mi ngi saal bi mook soxna Kumba Fall ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant yi tamit euh, sëñ Abdourahmane Diouf sama doomi bàjjan la waaye sama kilifa la ndax sama maga ndax bu fi suñu xalil toogoon tey moom mooy doon kilifa gi kon bu fi toog mooy kilifa jataay bi di sant sant sëñ Fallou Ateex sëñ Ahmad di sant mbooleem njaboot sëñ Cheikh Obale di ñaan nag mbooleem koo xam nekk ci saal bi di ab taalibe ñun bokkuñu ci ñi nga xam ne dañuy woote bis jël xaalis bi lem suñu poos duñ rendi duñ joxe boisson duñ joxe ndox ñun danoo rendi def ay teranga yéen ñëpp toog leen fi ku fi mën a nekk loo bëgg mi ngi fi bu soob yàlla ci wàllu jëfandiku loo ci bëgg am na ci di sant presse bi Touba ti Touba Vision Touba TV Bichri TV presse bi ak ak Diwane TV bi nag problème da ci am problème bi ci am mooy keroog nga xame ne rajo Dakar tànc nañ murid yi ban dellu sëriñ Abdoulaye wax ko ko sëriñ Abdoulaye da caa am gis-gis ba muñ loo ko murid yi sëñ Touba faye murid yi léegi ku bëgg télé mu yomb la mboolem télé yi nekk ci réew yi ci ëpp doole télé yi murid yi la waaye boo seetee ka jiite télé ba dong mooy doon murit ñoo ca des ñëpp leneen la ñuy nekk te luy saboté yoon wi rek ci lañ nekk ci lañ xëy bu dégg bëccëg luy saboté yoon wi rek lu lu bon lu ñu yaakaar ne bu ñu ko waxee mu laal Touba ñëpp dégg ko moom la ñu njëkkee moom la ñu def titre RTS gii na président xamal ka ko yor ne ko du télé ethnie télé bi yow mi la kafa nekk askan wu mbokk moo xam waaye contribuable lu sénégalais yi lañ koy jox muumu télé bi lim ciy def nag mi ngi bëgg a neex président de la république ndax ñi ko jàmbat bari na te faju bu jàppee na nag bu jàppee bu jàppee ne mairie wàq naan nim saat moo ëpp doolu yoonu murit ak tooñ gi mi tooñ murit yi ci bi ba tax muy continuer noonu na continuer sëñ Tuubaa ngi fépp wàq naan nim saat bu murit di toogee dara du fa dox du télé bi li xew ci réew léegi nan ko bàyyi nan bàyyi jël direction yeeg ministères yi mel ni benn ethnie fi nekk non Sénégal ñëpp ko bokk nan ci boole ñëpp loolu mooy dëgg boo demee Kajoor jur gu fa yow da nga koy yeewi man nan maa seere ñoom ñu ngi nii jur gépp sàcc nañ ko am na ci yàlla ma yàlla wal préfet yoo xam ne sax danoo woo ay chef de village menacé leen sàcc bu ngeen fi dóor dañ leen di jàpp aw bëy wala xar kenn mënatu ko yeew léegi nag maanaam xewal leen taalibe yi sëriñ si lan xewal dem leen daaru ma naan sëriñ bu fa nekk sàcc man ñii ren di ma bëgg def opération tabaski Modou Mokhtar Diouf ma ca béykat dana ma boo ko def ndax soo ko fi yeew ko yeew ndax daaree gi yëpp yem léegi te benn sanction nag amu ci waaw foofu la réew mi toll gerte gi ñuy wax jar na jarul waaw mi ci sàq taalibe yi xamuñu nu koy def. nan ngay jëlee société bu toll nii euh, Sonacos mu mën a nal diwlin koo xam ne réew mépp mën koo lekk nga teg ko ci loxol koo xam ne xamul dara incompétent xamul dara ah war a dem retraite ça veut dire quoi. sëñ bi ne la sëñ Maamor mu ne ça société ci bari noonu la demee dañuy jël koo xam ne incompétent la xamul dara ñu jiitale ci société yow jëriñoo population bi di leen lor teg ci nan la xoolaat na ko rectifier Sonacos ki ko yor mënu ko yor bu ko mënoon a yor gerte gi du lambe nii kon nag ne war na am capacité bu négocier banque yi jënd gerte gi ci nit ñi da ko mënut na ko dàq jël keneen saa la borom réew moom ñëpp a ko bokk ku fi ku fi ku fi ku fi jox capacité soo war a dàq jël keneen saa la borom waaw ñu ngi fàttali ko nag njabootu Serigne Touba gi nga xam ne dañ fee baw di ko tàmbali ci Serigne Mourtada sama bàyyi sama xarit Cheikh Sidi Moutar bi ma ko njëkkee wax daayira bi dana mel looy doon ma ne ko yaay doon président bi ma doon vice président bi mu ree waaye yàlla dogal boobu taxaw bi mu fi jógee ma yee salaat ko ànd ceeg nag sama waajur wee wu baax wee nga xam ne moom sëñ Seexu Balla ku dul sëñ Fallu gën a kon sëñ bi na nga ñu ñaanal ci daayira bi mu taxaw daayira bi nag bu ñu ko fondee kenn tabaxu ci kër kenn tabaxu ci jumaa kenn du ci tabax benn pant xam nga fu ñu koy jëmee ci njàngum gone yi ak fajum nit ñi yoonu murit bari nañ dool lool doole lool waaye dana fonk tabax te tabax yu set yu bari bu ñu amee gone lañ ca dalal nit ñoo xam ne xamuñu lañ cay def nañ jublu ci taalibe yi jublu ci suñu dëkk yi fajuwunu lekkunu naanunu jànguñu tamit mbooleem daara cosaan gi nekk ci euh, dëkk sëñ Tuubaa yi daara yëpp ràpp na waaye sëñ bi nan nan nan wàññi tabax yi tabax yi moo am na ci tabax yoo xam ne daanaka boo dajale lañ cee dajale diggante entrepreneur baax ñu négocier marché ba ca la yem mais quand même nan ci nit ñi nit ñi moom liy dugg seen biir dem seen yaram moom kenn mënu ci dara am xool loolu loolu moo ëpp intérêt sëñ kon ñu ñaanal Cheikh Sidi Moutar sëriñ Aliou Mbacke day ne Fatma sëriñ Isaaxa Mbàkke Gaynde Fatma sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëñ Modou Bousso Dieng sëñ Abdou Fata moom sëñ Cheikh Gaynde Fatma sëñ Abdou Aziz Mbàkke mi fi jóge nga xam ne bi ñuy génnee euh, màggal bi gisaat nañ ko fii daaw rek kon bala ñoo jóg sëñ bi sëñ bu baax bi ñu ngi lay ñaan nga jàngal ñu ñu jàng ñetti lixlaas tëjee ko salaatu ko man yéene ko ñooñu ak di ko mayga di ko Fatima mayga bis bii bu soxna Daba Masaan nopp moo leen fay nekkal yor lépp lu ku nu manqué la ci bis bi di di sant alaaji Omar Sy sama bàyyi sama xarit daa tukki waaye ku jàpp ci bis bi la di sant sëriñ Paate Jaxate moom it sama xarit la sama bàyyi la ku ñimee dëgg la ku ko nangu la différence bi mu am ak ñu baree bari mooy boo dee wax moom dëgg da lay déglu gars yi nag moom bàdd gu dagg leen bëgg ku ne jot ci yow loolu neex nit wax loolu moom moom du doxee noonu waaye wax dëgg yàlla man mi ngi may déglu te maa ngi koy man képp ku ma rek ñi mën a wax yow ci sëñ bi a wax ci yoon du ma ci hésité sax kon maa ñëpp di gërëm ñëpp waaw soxna Fatou Mbacke soxna ñëpp wax jërë ngeen jëf ñu ngi leen fàttali ak njaboot sëñ Mourou Mokhtar gépp sëñ Mourou Mahfouz Mbacke mi ngi toogal ci ginnaaw sëñ Assi Dieye maa ngi sant ñëpp liggéey bi nag suba la na ko ñëpp bàyyi xel bu ñu jógee fii rek ko fanaane loo sonn sonn jàllal ci liggéey bi ndax gàjji ngeer moo xam ne bu ëllëgee mën nañ faa ji dugub wala ñu fa gerte mu ñor ñu def ko ci saako jaay njëgg yëpp Serigne tubaa wala ñu jël ko noonu yët Serigne Touba lu ca nit def du doy kon yéen ñëpp na xam ne suba laa ji maam ca ne santaane ak ruuj ca daaru daaru manaan ñu baree bari sax moo moo tax ca Touba ñu baree bari sax moo tax waa ñuy wàccaay ñëw ñu ndax bi si benn la te am na ñu dañ fi teew kon ñu ngi jéglu lu baax di sant ñëpp di gërëm